loo xam ne ñun suñ culture comme ay sénégalais ñun comme Sénégal boo xam ne nii dëgg-dëgg mën ngaa gis chrétiens yi ak musulman yi ñu nekk ay xarit di demlante di ñëwante pays bu am tolérance comme Sénégal nga xam ne président bi njëkk am muy Léopold Sédar Senghor dégg nga chrétien la généwul benn benn nit dégg nga gouvernement bu am tey jii gouvernement bi am tey jii ñu ci nekk nekk ay chrétiens généraux doon nit parce que li ñu soxla ci ñoom mooy ñu nekk ay sénégalais yoo xam ne mën nañoo servir Sénégal mën nañoo dimbale Sénégal bu école chrétien yi euh, baaxee di jàngale ba jullit ñi óolu yóbbu seen doom gis ne mën nañoo yar sénégalais mu am culture mu am xam-xam mën a nekk koo xam ne nii dana dékku ëllëg dana baax pour ëllëgi Sénégal mais war nañoo sàmmante jikko yi nga xam ne tim ñoom lañu amoon démb ba Sénégal jullit yeeg chrétiens yi ñoom ñëpp nekk ci jàmm buñ déggoon àddina bi lii Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu wax bam dajeeg Brejnev ci ci palais Kwame Nkrumah seetal Cheikh Ibrahim nekk ximma ci lislaam Kwame chrétien la Brejnev moom gëmu dara dégg communiste ci biir waxtaan dafa ne baay man foogu ma woon ne ñun mën nañoo jëflante yéen ndax yéen da yéen a gëm diine te ñun gëmul diine kooku gëmul diine sax baay am na fum mu bind ne jullit ak ku dul jullit ci benn dëkk dafa mel ni ay citoyen benn dëkk su ndaw dëkk bi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo bokk dëkk bi ñooy dajee ci école yi ñooy dajee ci atelier yi ñooy dajee ci marché yi ñooy dajee ci mbedd yi loolu yëpp ñoo ko bokk bu tëdd jotee ku nekk dellu sa kër bàyyi mu ne ko jullit nag këram mooy ay wareefam ay waree fi diineem waajibaatam ak sunanam ak mën duubaatam ku dul jullit moo gën a xam boppam moo gën a xam këram dégg loolu lu simple la loolu nag ndëkk su mel ne Sénégal loolu dëgg-dëgg mën naa nekk exemple ndax gis nañ ci dëkk Afrique yi nga gis léeg léegi nga dégg église bu buñ bombardé léeg-léeg nga dégg jumaa juñ bombardé Sénégal yàlla musal na leen ci loolu yàlla na yàlla sax di ñu musal ci loolu mais ñu ngi wax ñëpp kilifa yëpp ñi xam ne euh, dañoo soxla dialogue nga soxla dialogue boo xam ne dafay ànd ak respecté ante waaye tim jullit ñi tim nañ góorgóorlu defal seen école yi ba nga xam ne duñ buuxante ci benn école duñ li ngay soxla ci xam-xam mën nga ko faa am boobaa doo buuxante ci benn école ndax buñ demee ba sori nit ki mën naa wax ne man suma école man maa tànn ay critères yoo xam ne moom laa bëggee suma école yow critères yooyu doy la yow demal def sa école am na droit ci loolu gannaaw boo xamee ne danañ seet ndax loolu dana dëppoog li nga xam ne sarti réew mi maye na loolu wala mayewul loolu waaye ñun ñi ngi waxee ci buntu ne ay mbokk lañ mënuñoo ñàkk jëflante ñoo bokk benn dëkk te duñ ko xaaj duñ dem ci beneen dëkk te bugguñoo duñ beddi kenn ndax benn sénégalais amul droit beddi kenn ku nekk sa kër nga moom ku nekk sa sa mbedd nga ilif ku nekk sa eh, diine yaa tànn sa diine bëgg ko topp ko lakum diinukum waliya diin mag ñu nekkoon nañ fi mas ñoo xuloo ci loolu loolu mas ñoo xeex ci loolu am na loo xam ne colonialiste yi ñoo ko waroon a def loolu jeex na waruñoo toog ba tey jii ñun sénégalais ak sénégalais ñi boddante ci ci xeex di xaajale nit ñi ci diine wala ci waaso wala ci solin wala ci doxin feeg nit ki mu ngi ci école bi di dëpp di di sàmmanteeg euh, loi bi nga xam ne moom mooy loi école yi te lii defe naa ne bokkutoon ci loi école yi te école chrétien yi xale yi dem ñi leen di tere loolu du ne école buy jàngalee diine la comme nag école buy jàngale diine kum neex nga ñàkk a muuru dëgg-dëgg war na kum neex tim nga muuru ñu ngi encouragé xale yu jigéen yi nga xam ne ñu ngi euh, sàmm seen diine di muuru alhamdulilah tey jii Sénégal euh, passé nañ lu yu bëri ci loolu ndax bu njëkk euh, xale yu bëri dañu bëgg muuru sax dañu complexe si tey ñëw ne ay yow da ngay meer meer lu fekk meer meer lu da ngay julli julli mais léegi passé nañ foofu passé nañ fofu xam nañ ne julit bu gëm yàlla gëm yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam yàlla wax yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko waxal say doom ak ñu gëm ci jullit ñi ak say jabar ñuy ñi ñi ñi ñi xormaal ñi muuru dégg nga yonent bi wax tim ci xadis ne jullit boo xam ne dem na ba mat dara xeew ci moom mu génn feeñ ci moom lu may ak loxoom ak xarxanam di la am na ñoo xam ne sax àgg nañ ci muur xarxanam duñ dugg ci détail yooyu waaye liñ xam ne xam nañ ne jullit bu jigéen bu mat bu nekk war naa sàmmanteeg moom mooy muuraay te muuraay gi dafa rafet dafa rafet waaw muuraay gi rafet na waaye ngi rafet na te dafay tax ci nit ñi weg la dafay tax ñi respecté la jigéen du marchandise dégg nga boo xam ne dañ koy jaay dégg nga bu fekkee ne ñi nga xam ne dañoo nekk ci télé yi di publicité ñun dañ leen ciy fay waaye looy publicité ci sa ci sa biir école wala ci sa biir yi naaw leen gardeel sa bopp wegal sa bopp ñëweg la te mënuñ laa weg lu may nga weg sa diine topp yonentu am Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu gënal la lu nekk nañuy topp yonent bi gënal lu nekk jaar ci yoon yonent bi nañuy gënal tànn nañuy nañuy gënal tànn ay école jaar ci yoonu yonent bi mu njëkk nañu gënal tànn ay école loolu nag du commencé ci xale yi xale yi duñ ko defal seen bopp ci waajur yi rek lay commencé da ngay juddu fekk sa yaay oyofal muuru nga jàpp ne dafa oyof ko defee mu yàggee sax wala xale bi commencé muuru sax ñu jàpp ne moom dafa bëri affaire waaye yàlla li ñu ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla jàmm ji Sénégal yal na ko fi yàlla saxal tolérance bi nga xam ne euh, ay julliti Sénégal ak ay chrétiens yi Sénégal naka jekk moom lañ amoon di dund ci jàmm di deflante ci jàmm di di di bokk di def di bokk gouvernement di bokk di liggéey di bokk ci tool yi di bokk ci école yi di bokk ci oto yi di bokk ci euh, business yi loolu yal na ko yàlla saxal te li koy saxal rek mooy jikko yi nga xam ne moo ko fi indi woon jikko yooyu nag dara jiituwu ci yaatu دن نانغول سموك لينغا li nga xam ne moom nga bëggal sa bopp allahuma salli ala sayidina muhammadin fatih ma ulik الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم صلاه تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها النار وبالشر والتعصير تكون بها ولي ونصيرا انت ولينا ومولانا فنعم مولانا ونعم نصير